بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وكينو نسان سن بروم سبحانه وتعالى أجي ماغ جي تكاوي نونغي كوي باك ديكو كاgne di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni borom bi subhaanahu wa taala moom rek mooy ki ko jagoo noo ngi julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu dëkkee dotti waameem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain noo ngi ñaan sunu borom bi asmaai alxusna wa sifaatihi alula أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا dellu siwaat nañ beneen yoon ci doon keppaaru xam-xam ci doon keppaaru alquran alkarim ci sunu bind bi tafsir alquran alazim bind bi weesu ñu ngi nekkoon ci saar wu am solo woow di suratu talaaq baamoon ci benn laaya tey ñu war a tàmbalee ci laaya ñaareel ci suratu talaaq sunu borom mi ngi wax ni audu billahi min alsheitan arrajim bismillahi arrahmani arrahim فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا laa ye yooyu insha allah mooy nekk sunu bindab tey ci suuratu talaaq tey mooy ñaareelu bind ci saar wi di suuratu talaaq nga xam ni mooy suuratu nisaai alqusra comme ni ko mufassiru ni tuddee suuratu nisaa wu gàtt wi ndax suuratu nisaa wu mag wa mooy yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum suuratu talaaq mooy suuratu nisaai alqusra li tax ñu tuddee ko ko mooy daanaka li ci nekk lépp ay njàngale la yu jëm ci biir kër waaye yu jëm ci mbirum jigéen bu ma sofee bindab tay bi ci bind bi weesu gisoon nañ ni fase kat mbokk yi du mbir mu simple moo xam ni daal saw fas la woo yeew rek neexatu la nga dem ca marché ba jaay ko déedéet mbir mi demewut noonu ay responsabilité yu rëy mi ngi ci lonk yoo xam ni sa borom yàlla dina la ko laaj bu soobee yàlla feccim kóllëre mën na cee am te it suba mën nga kaa réccu wor mën na cee am te su boobaa day këpp sa kaw jafe-jafe yi am ci wàllu sëy nag tey mbokk yi bari na lool ba tax fase di am jafe-jafe yi am ci biir néegu sëy ba tax fase di am bari na lool yi ko waral tamit bari na lool tey jii boo demee ci tribunaux yi mbirum sëy bokk na ci yi leen gën a jaaxal gis nga fi mu toll nii téeméeri dossier yoo yóbbu tribunal ñu koy àtte lii may wax nii ñiy faral dem tribunal xam nañ ci dara téeméeri yoo yóbbu daanaka juróom-ñaar fukk ya wala juróom-ñett fukk ya yépp ci mbirum sëy lay wax la ca des mooy wax ci ay rey nit ak ay jëlee fi jàmbur ak lépp bañ a fay ak ila axirihi fi mu nekk nii réew yi gën a yaakaaree diine tey boo demee problème bii lañ am soo jëloon misaal réew mi ni Arabie Saoudite tey nga xam ni ci réew yi ñu gën a yaakaaree diine la bokk fi ne ci réew yi gën a am problème fase la bokk. maa fàtte ak gaawantu waajal dars bi waaye am na ihsa ihsaiyaat yu ñu def ci 2014 bii ñu génn rek daanaka lim bi ñu joxe ni moom mooy moom la ñoom la ñuy fase par at ci réew mu mel noonu buñ la ko waxee da nga naan déedéet. loolu kay xanaa wërta am ci foofu ñu gën a yaakaaree diine kon feneen taxut di wax kon gànnaar gi gii ñu gën a jege ci réewu naar rek boo fa demoon fi ne moo fa am xam naa wax jii may bëgg a wax damay bañ mu nekk mu baalaxa waaye léeg-léeg nit ñaa ngi koy wax da ngay dégg sax léeg-léeg suñu mbokk naar yi ñu di leen tooñi naar moom bari jëkkër ndam la ci moom loolu da ngay dégg nit ñi di ko wax di wax naar moom bari ay jëkkër ndam la ci moom te it nag ah duma ko saxal de waaye nag man duma ko wedd de saxaluma ko waaye duma ko weddi nag ndax neexu la weddi li ko waral ci neexu la weddi mooy léeg-léeg nga gis koo xamante ni daanaka ñaar fukki jëkkër ak juróom am na ko xam nga ñaar fukki jëkkër ak juróom nag wax dëgg yàlla moom dafa dafa rafetul sax nag dëgg dëgg rafetul ci dégg-dégg rafetul ci ormay nit ki jafe-jafe yi am ci biir sëy nag mbokk yi ngir éviter ko ba fase di am ay mbir yu bari da koy waral waaye am na yenn yu ma ci seppi woon yoo xam ne buñ ko déggee dana nga xam ne yii kat bokk na ci yi waral jafe-jafe di am ci wàllu sëy bokk na ci jafe-jafe yi am ba fase di am mooy tey li ëpp ci ñiy takk ay soxna ay ndaw lañ te ndaw li dee su ko togg ba mu ñor daal di koy jox jabar moom yaakaar na ni mbir mi da ngay mën a ànd ak moom ànd ak moom soo ko mënatul nga ba ko mu dem nga dem fekk mbir mi romb na loolu bu njëkk nit balaa takk soxna danaa nekk mag mu dem ba xam ay responsabilité am mbaa xam ngeen ni ñeen fukki at ku ko xës am rek soppi ni ngay dundee tey jii ñi yore soxna ñépp boo leen xoolee ñi ci ëpp amaguñ ñeen fukki at te ñeen fukki at dafay rompoye dund yu bari da ciy soppeeku gis nga ca suratul ahqaaf fi suñ borom di waxee ahqaaf wala wala waaw daf suma jumul ahqaaf la fa sunu borom xata ida balaga ashuddoo balaga arbaina sana qaala rabbi awzicni an ashkura nicmataka allati anamta alay insha allah sunu xutba ji di ñëw fii jumaa ci aaya jooju lañ ko bëgg a def ci wane ñeen fukki at bu fa nit tolloo lii soppeeku ci dundam ak yi ko war su ko defee ndaw li day jaag tàngooram bët bi fu gàtt lay xool fekk mag day xool lu sori di sédd yu baree bari rakku jàmbur laa yore te man am naa rakk doomi jàmbur laa yore te man ëllëg damay am doom yu bare bare bari da nga koy sóor di nurookum ragal fekk déedéet mbir mi noonu la bokk na ci jafe-jafe yi li koy waral ci jamono bi ñu toll mooy nit ñi ci seen jëmmi bopp seen dund gi léegi dañ koo matérialiser lool ba tax daanaka ñi ciy sëy ngir yàlla ak ñi ciy ànd ak seen soxna ngir yàlla bareetut te loolu saa bu amee rek na ngeen yëg ni paxam teqalikoo ngeen gën a jege paxam ànd bokk na ci sabab yi mooy góor léeg-léeg dafay tabal soxnaam lu mënta wëy góor day takk benn soxna tamal soxnaam lu mënta wëy saa bu demee ba takkaat beneen nag loola mënta woon a wëy nga bëgg koo arrêté te fekk yaa ko ko tamal coow judd lu am solo ko ak a mat a bàyyi xel léeg da ngay nekk ak sa soxna tamal ko loo xam ni mënta wëy olof yi dañuy wax ni lu mënta wëy jër ta départ jër ta tàmbali saa boo takkee beneen soxna nag lay maanute mooy nga arrêté yooyu yépp tey di yaa ko ko tamaloon bokk na ci jafe-jafe yi mooy góor ci boppam dafay jug bëgg a takk ay soxna te lim boot jotut mu bëgg a dolli loolu la jigéen ñi jigéen ñi loolu la ñuy wax naan yow yow da ngaa da nga yaa ngi boot jot le woo ngay jéem a naan da ngay ŋàbbi gamb am na tafsir bu ñu fi defoon ci suratu mu'minun suratu nuur ci wal wa ankixul ayaama minkum ak wal yastaafifi alladina am na ci kenn ci jigéen ñi ba mu jógee ci dars bi daa dem ci daa dem ni jëkkër ji oustaz nee na bu fekkee mënoo yenu paan bu mënente yenu paan da nga yenu siwo waaw noonu laa waxee woon waaye nag yóbbante wu ma ko woon nag mu ne ko yow yaa ngi nii xam nga ni sa loos yu mënta yenu paan boo yenuy paan sa sa baat bi damm ba yow nga yem ci siwo loolu mooy ki nga xamante nii ci benn la mën a yem na fa yem waaye nag góor ñu baree bari riirum bëgg a takk beneen daf leen di dugal te kër yu tas yu bari boo ko seetloo nit ki day nekk ci jàmm takk beneen soxna rek këram tas jàpp na ni góor gu am fulla du tas kër pour taxawal kër déedéet kër génn du ko tas pour taxawal kër kenn du taxawal kër it pour tas kër bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante nii day faral di am ba fasente di am dafa am ci góor ñi ñoo xam ni te it noonu la amee ci jigéen ñoo xam dañoo ñaaw ay jikko dañoo ñaaw ay jikko gis ngay jikko yu ñaaw borom kenn du mën a nekk ak moom bu dee jëkkër moo am jikko ju ñaaw kenn du mën a nekk ak moom su fekkee jabar moo am jikko yu ñaaw kenn du mën a nekk ak jikko dafa doy waar ndax li ko waral mooy jikko su ñaawee dafay blessé xol te xol mooy sëy am xel sëyut ay bët sëyut ay nopp sëyut ab xol mooy sëy te jikko ci xol lay na su ko defee léeg-léeg ñaaw jikko kenn ci ñoom mën naa indi ay benke ñenke ba teqali koo am bokk na ci jafe-jafeñ yi waral sëy di am mooy góor ñu bari dañoo yàkkamti góor ñu bari dañoo yàkkamti da ngay gis ku takk soxna ñetti at ñetti at rek ah kii ba mu ko dalee muñal ba léegi kii ah dama wax ba sonn ñetti at fekk sa baay la gën a mën a mën a muñ ndax sa baay moom amaana loolu muñ na ko lu mat fukki at ak juróom mbaa ñaar fukki at góor ñi dañoo yàkkamti gis nga bari waa na looy dindi ci nit boo defee ndànk rek yàlla mën na lay dimbali ñetti at lu dara mbokk yi yàlla xam ne li ci gën a yéeme la ngay dégg kii ba mu fi sëy sëy ba léegi damaa jéem ba sonn te boo xoolee kat sëy bi amagul ñaari at de seen taaw sax feragut yow defagoo dara commencé goo sax faf yow ci fi ne ci publicité damay waaj a takk jabar nga toll defagoo dara bokk na ci yi nga xamante ni mooy indi jafeñ-jafeñ yi ba teqalikoo di am mooy nga yaakaar ni ki nga nekkal ku mat la warta juum moo xam ku góor ki la moo xam ku jigéen ki la te faw juum te di am bokk na ci yi waral teqalikoo di am mooy di topp awra yi nit ki awra suñ ko waxee mooy lu ñaawam gis nga léeg-léeg da ngay jéggale di jéllale nga mel ni ku yëgut la waykat dox fa kun ka annaka lam tasma wa lam yaquli melal ni yow déggoo ko gis nga jigéen ñi léeg-léeg ñu wax la benn baat boo xamante nii boo ko jéemee dégg-dégg loolu da ngay dee da ngay mel ni ku ko déggut dem sa yoon loolu la ñu nettali góor ga dañu woon xale yi dem leen tool xale yi daal di dem tool mu ne leen maa ngi dem tukki ñu jékki-jékki moom yàgg rek benn ndongo daal ni eh sëñ baa ngi ñëw de keneen ki di ko kon de moo mën a kàcc moom noonu naa de day dem xawma fan sëñ bi daal di koy dégg rek daal di sëggaat ci ron ngeer yi daal di rocceeku dem ñibbi ah wax dëgg ndongo li mu wax bon na waaye nag wax dëgg de ndax moo ni woon du ma ñëw gis nga léeg-léeg am na yoo xamante ni rocceeku ndànk bañ koo dégg moo lay arrangé bokk na ci jafe-jafe yi loolu bokk na ci jafe-jafe yi mooy jigéen ci boppam lépp luy waral xolu borom këram di ko daw da koy moytandiku moom la ñuy tuddee attafaqudu li mawaadu aynihi wa anfi fexe ba sa borom kër bu mu la xool ci melokaan wu naka su dul noonu pa- parce que foofu ñoom ñaar ñëpp la waaye li ci jig jigéen li ci jig góor jigu ci jigéen fexe di am xet bu neex ila axirihi bokk na ci yi nga xamante ni mooy waral jafe-jafe di am ba sëy di am mooy ñàkk a nangu kilifteef te loolu jigéen ñi la parce que faw kër am kilifa te góor mooy nekk kilifa ñàkk a nangu kilifteef day indi ay problème yu bari beneen bi ci des mooy dafa am góor ñoo xam ne dañoo gaaw a dóoraate gaaw a dóoraate du ndam ndax kuy xeex da ngay xeex ak sa morom te sa jabar du sa morom kuy xeex da ngay xeex ak sa morom góor bu amee doole da koy wan ay morom waaye du ko wan jabaram waxuñu bul dóor waaye nag benn ñaar ñett rek nga dal di dóor ah déedéet jigéen du mbaam nag ba foo tollu ngay dóor beneen bi ci des mooy li ëpp ci problème yi dañ ko war di régler ci seen biir seetlu ngeen ni problème yi yi ñuy gérer mooy gën a neex a régler que problème bu kenn ku nekk jot ndax am na ñoo xam ne buñ jotee ci problème bi rek musiba lay gën a indi lu mel ni sa frère ndax frère day sot lu mel ni sa baay baay day sot yaay day sot ila axirihi yii daal ci gàttal bari na lool ci bunt bi yoo xam ni dinañ ko ci leeral ci buntu jafe-jafe yi am ci wàllu sëy waaye bokk na ci yi koy waral yooyu bi ci mujj bokk na ci li koy waral mooy góor di takk soxna di ko nëbb góor takk soxna di ko nëbb loolu nag mi ngi am xëy na su ma ko waxee ñi ko xamut wala ñi ko gis da leen di jaaxal est ce que xam ngeen ni fi mu nekk nii am na góor ñoo xam ne dañoo takk soxna ba noppi te yëgaluñ ko seen soxna te loolu waxuma la musiba yi ma waxuma la fase waaye li mën a jur ci ay conséquences yàlla rek ko xam benn borom xam-xam mi ngi nettali nee na am na benn waaye bu ko mas a def ba xale yi màgg nee na bi xale yi màggee ñu màgg fi kenn yëgu ko ba xale yi màgg ba dem ba université ndeke ñoom ñaari gone yi ku góor ki ku jigéen ki gisante nañ bëggante nañ te xamuñu ñoo bokk baay bis bi ñuy dem ba di leen takk ci lañ ko doog a xam su fekkee juuma ci xissa bi defe naa yaayu kenn ki moom dafa dafa mujj xaru donte def na musiba nag bi mu yëgee loolu dafa mujj xaru yéeg ci kaw étage bi rek daanu faatu xoolal loolu te loolu lii bokk na ci conséquences yooyu bokk na ci mooy ñaar ñi bokk bàyyi te xamante wuñu bokk na ci conséquences yi mën naa tas kër parce que confiance lay daal di dindi totalement bu nit ki yegee ni gis nga fi mu nekk nii booy dëgër fit da ngay dëgër fit boo dëgërul fit nga toog waaye nag di ubbi sa xol bi di ko xoolee xulleeg ay bët a ko gën loolu mooy lan boo mënee takk takkil soo mënta takk baal waaye di labat di nëbbatoo takk soxna di nëbboo wala ah xanaa sama gars yi ngeen ñëw waxal ma ko sama soxna si yow boo ragalee ba mënoo ko wax si soxna kay looy takkati doye yu bare bari façon yu bari ñu ngi ko fiy gis yooyu day indi problème moo tax sëy yu bari yu tas ci fii lay jaar te gis nga beneen problème bi am ci miraas bu jotoon imam ibnil jawzi mi ngi nettali ci ba ba ci sifatu safwa xissa bu doy waar nee na ci Bagdad dafa amoon benn waay boo xam ni moom dafa nekk ci kantinam di jaay ay yére benn xale bu jigéen bu niqaab daal di ñëw di jënd nee na xale bi di jënd ba mu yàgg rek xale bi daal di nii aj niqaab bi bi mu ajee niqaab bi ah ndaw saa ngi mel ni ka filqatil xamar xar kanam gaa ngi lerax lerax yi te xam ngeen am na ñoo xam ne borom sotala moo leen dénk taar ndax yàlla mooy séddale am na ñoo xamante nii moom bu la yàlla dimbalewut mën nañ laa fitnaal ndekete waa ji bi mu siggee xool ko rek ndaw si tàbbi la ci xolam ah ndaw si it gis na ci geste si ku góor ki xam nga jigéen daa bari pexe inna kayda kunna asim ndaw si jigéen dafa bari pexe xam na ni xel fi ne kii moom fel na fel naa ay bëtam nu mu def mu daal di commencé moom dialogue ak waa ji daal ni ko man de wax dëgg yàlla man dafa mel ni yow xemem naa la pour nga takk ma gis nga fan yépp may ñëw ci marché bi jënd taxumaa jóg dama doon xool gan góor laa moo ma doy ma mën a ànd ak moom mu ne ko ah man ne damaa am soxna sama doomu bàjjen te ragal naa su ma takkee dañuy am problème mu ne ko léegi da nga koy nëbb man amul problème mën nañoo régler ay gi ay gi bu la neexee ngay ayee ci man par bëccëg est-ce que xam nga ni fii ci Ndakaar loolu am na fi fii ci Ndakaar maa la ko wax tey ci àllarba jii tombeeg le 29 fii Ndakaar boo duggoon di nga fi gis góor yu bari bari yoo xamante ni ñu ngi ayee ci par bëccëg maa maa la ko wax. léeg-léeg nag lépp luñ la wax teg tegagoo ci sa bët rek xamal ne am na ñu ci teg seen bët am na ñuy aaye ba cag de day liggéey ba wàccee rek dem aaye ji parce que dafa fekk dafa takk di ko nëbb léegi waa ji saa bu ba cag jotee mu dem aaye ji soxna si xam nga jigéen dafa dafa dafa yeewu ndaw si daal mel ni ku am lu mu sipsone te affaire bi def na lu mat juróom benn weer ndaw si commencé ko sipsone daal di wax mbindaanam ni ko bu tisbaar jotatee bu génne bu añsee bay dellu toppal ma ko nga dima ko xoolal mbindaan bi moom it daal di dégg ndigal topp ko di ko xool ba yegg si gis mu romb cantine ba dem ci ginnaaw marché bi am benn kër gum dugg mbindaan bi daal di jàdd bàyyi ko xool ko ba mu génn mu dem laaj dëkkandoo yi man de damaa gis góor guy dëggu fii ak a génn dama xamul ndax moom dafay am soxna wala déet ndax lii kii kat xawma ko ci koñ bi daal di ja wax waxi naxa sa kandang rek gars yi daal di koy tontu ni ko kii day diw albazaz mooy ki nga xam mooy jaay fële ca marché ba moo ko takk wax a wax a wax ay wax mu xam ni kon mbir mi dëgg la mu ñëw nettali ko ndaw si. gis nga sunu jigéen ñi dañoo ëppal c'est que jigéen ju yeewu dafay mën a gérer problème gis nga bu doon ñu na boo ko waxee soxna si rek tey mu tukkal àddina balaa ngoon a jot waaye ñoom dañu amoonu dal ndaw si ni teg mel ni ku yëgut lu xew mu ne ndaw si mbindaan mi bul ko yëgal ni ko man yëg naa dara noppil ma noppi benn takk na ko ba pare ñaar am nañ doom moo moo moom moom mii ak jëkkëram ñett mënoo fexe ba sëy ba tasati mbaa bu tas maanaam daal yu bari da gis nga nit bala ngay def dara da ngay xalaat yan conséquence moo ci mën a topp ndaw si toog di hésiter ban nan lay def far jëkkëri ndaw si gaañu waa ji takkoon di ko nëbb far mu gaañu bi mu gaañoo ndaw si fekk mi ngi bàyyi juróom-ñetti junni diinaar juróom-ñetti junni diinaar ndaw si daal di koy miraas moom aaw bi ndaw ndaw jigéen ju mën a miraas suñ jigéen ñi ne boo laajoon kana kana ñu tuddal ma ñaar ci ñu war a doon rek xamuñu ko ndaw si daal di jël alal ji xaaj ko jël juróom-ñaar fukki jun juróom-ñaari jun juróom-ñett juróom-ñaari junni diinaar yi jox ko doom ji doom ju jigéen ji ndax benn doom lañ amoon mu jël benn junni diinaar bi xaaj ko ci digg bi jël lenn li moom ndax jabar la mu jël li ci des def ko ci benn kees bindaale benn leetar ni ko yëgoon naa ni diw takk na la damaa yëg xam ba ca li wala fi naan xam ba ca mu ne ko damaa xamoon ba ca léegi nag diw faatu na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun miraas naa ko lii mooy sa wàll lii mooy sama wàll lii jox naa ko doom ji allahu akbar kees gi yegg si ndaw si xool ko gis ni leetar bi mu liir ko xam ne waa ji fa mu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu xool leetar bi gis ñu ni ko jëlal lii mooy sa wàll mu ni ko yëkkatil nga delloowaat ko ko nee ko waa ji balaa muy faatu ndekete fase na ma te yëgoo ko léegi ñaari jigéen ñi kan moo ci gën a baax ñoom waaw neexu la neexu la àtte de xoolal kii ñu wutal la wujj ci anam bu ñaawee nii anam bu jaarul yoon bii nga mën koo muñ noppi waale ko ba waa ji faatu bàyyi fi alal mu mënoon a jël alal ji aaki moo ko te dara du ko ca fekk parce que les comptes ca moom la tax compte mooy moom xamut yoonam newu ca waaye moom mu miraas ko jox ko wàllam kee tamit mënoon naa jël ni mi mi gaara ndax su ko defoon it kenn du xam ku dut yàlla waaye mu ni ko fase nañ ma ba pare mu ne ko eddawu donga ma war fase eddawu yow la war ak ak doom man fase woon nañ ma avant mbokk mi nee na ku jëkk kii gi war a gën a kii moo ne ku mujj kii kii na de waaw kii nag moo wax qaayida bu am solo alfadlu lil mutaqaddim waaw bu dee loolu la moom ku jëkk kii jël ndam ndax dañ naan alfadlu mbaax bu ñuy séddale xamuñ kan lañ ko war a jox nañ seet ka njëkk a def waaw ki njëkk a def waaw muñ na waaye xam nga muñ na kee tamit muñ na ndax alal dafa neex moom kay alfadlu lil mutaqaddim rek alfadlu lil mutaqaddim waaye gis ngeen buntu boobu moo ta bàyyi xel la ay danger yu bare bare bare bare moo ci nekk kon borom bi subhanahu wa taala yoonal na fase waaye nag dafa am aw yoon nit ki du saabu ko neexee mu fase gisoon ngeen bind bi weesu li ci ñëwoon ci ay jàngale bindab tay bi sunu borom mu ni fa ida balagna ajalahunna ginnaaw bu ñu xamee ne ndaw si wàcc nañ ko léegi mi ngi eddawu attay wàcc attay eddawu wala lenn ci attay eddawu ci bii passé tey nag fa ida balagna su ndaw si yegsee ci dëkkmal ajalahunna balagna nekkul ni da ngay dem ba yegg ca ida tallaqtumu nisa nekkul da ngay fase ba pare ida tallaqtumu nisa ida aradtum tatliqa nisa fa ida balagna ajalahunna ida qorabna ajalahunna buñ dimee ba dëkkmal app bi mooy ndaw saa ngi eddawu fase nga ko mi ngi ci kër gi di eddawu fa ida balagna bu jegee ajalahunna ab ba mu war a jeexalee edda ah fa amsikuhunna téyal ndaw si bi maarufin ci njekk faylil ndaw si ah mbokk yi lii am ndigal la de te ki la ko digal xam na lim la digal de fa ida balagna ajalahunna su fekkee ndaw si dafa eddaw ba eddaam di waaj a jeex te jaar nañ fi ñu war a jaar nga jaar fa nga war a jaar fase mu jaar fi mu war a jaar toog su sunu baramu ni fa am si kookunna bi maaruf téyel sa jabar ci sa waay téyel sa jabar ci ah mbokk yi aaya ji mat naa xoolaat de moo tax nee naa la saar wi lépp am jàngale la saar wu jara def ndànk ngi nag fa ida balagna bu demee ba jege ajalahunna app bi nga xam ni su fa yeggee idda bi jeex na sunu borom ni fa amsikuhunna bi maaruf téyel sa jabar ji ci njëkk sa waay téyel sa jabar ji yoonu jàmm soriwut de téyel sa jabar ji boo xoolee nag ba jàpp ne yow mënatoo koo téye mënatoo koo téye ndax it léeg-léeg nag te xale koo day daal di gën gis nga sëy dana toll foo xam ni daanaka diw diwee jëkkëram diw diwee jabaram doo teqalikoo mooy gën ci ñoom parce que kenn dootul defati lu tudd jaamu yàlla ci sa morom wala dana toll foo xam ay danger mën na caa am teqali leen moo gën bu loolu amul fa amsikuhunna bi maaruf téel sa jabar ji ci njekk aw wala boog boo ko mënul faariquhunna teqalikoo leen bi maaruf ci njekk téye gi ci njekk bu fekkente ne bàjjen yi wala nangam wala diwa ci wax yow am nga sens bu dul woon ak diw bu dul woon ak diw perte nga perte nga déedéet d'accord diw mën na koo sabab waaye du moo tax nga jël ko da koo sabab diw wax na diw wax diw wax diw wax diw wax te ñoom ñëpp kenn la wax def waxam deful jeexintal diw mii ñëw wax waxam def jeexintal mooy sabab bi waaye du moom moo tax nga jël ko bu taxee nga jël ko ne da ngay perte loolu mooy bi maaruf beneen bi ci des mooy bul ko jël tamit avec jëlin woo xamante ni amaan na jël jëlu ñàkk pexe lay doon déedéet bi maaruuf jaaral fa nga war a jaar rafetalal lépp aw wala boog faariquugun na nga teqalikoog moom bi maaruuf ci njekk am na góor ñoo xam dañoo goree di trop waxoon naa ko dars bi parce que am na góor ñoo xam dañu goree di trop trop trop ndax teqalikoo yenn teqalikoo yu ñaaw yi ak yenn kàddu yu ñaaw yi nga yëkkati di ko teg te addina addina mën a dox man ngaa pàdd nit fekk da ngeen dox ba dajawaat nag gis nga nit man nga koo jekk pàdd ko fekk da ngeen dox ba dajawaat yow xoolal tey ki fase soxnaam wax ay wax yu bon wax ay wax yu ñaaw ñu dema dema dem ba mu yàgg gone ya màgg mënatoo jubóog sa njaboot lenn rek lañ bëgg mooy seen bàyyi na takkaat seen yaay wasalaam jeex na mënoo ci dara mënoo ci dara gis nga su boobaa su fekkente ni defee woon bi maaruf problème bu rëy di nga ko am te bokk na ci conséquences yi gën a am solo ci wàllu sëy bu tas te dama koo tëb fàtte ko donte mënu ma woon a wax lépp dama doon jëndi ay misaal rek bari na yooyu mënees na ci sax yeneen muhaadara insha allah waaye gone gi ci boppam bu dee da bi tas amee dafa féetewoo ak baayam baay yi da koy sol lu tax mu bañ yaayam bu tas amee mu féetewoo ak yaayam yaay ji day sol ci moom lu tax mu bañ baayam est-ce que xam ngeen ni sëy ñu bari ñu ngi bañ seen baay tey fekk seen yaay ko jëmbat seen biir xol defe ngeen ni xale ak lu baayam def lu mu bon war nga topp yow yow sa baay góor ñi moo ci gën a bon yow yow xoolal sa baay yow sa baay ba ma wàccee ba tey mas ngaa gis mu teg fi tànkam xale bi ne déedéet gis mas ngaa gis tabaski mu xotti la xale bi ne déedéet mas nga maanaam gis nga loolu yaa ngi jëmbat garab goo xam ni moo gën a bon zaquum ci xolu xale bi xale bi day dem ba daanaka noonu lay def baayam te effectivement même li ngay wax bu dee dëgg la maa kullul xaq yuqaal lu dëgg ku nekk la ñuy wax wali kulli maqaamin maqaal xalaas bu nekk ak lan fa war a wax tamit ah yow sa yaay xam nga ni jigéen du jigéen ju baax yow sa yaay fii laa ko bett hôtel sàngam mu ànd ak loolu defe nga lu lu ci yoonu xale dafa am loo xam ne kenn du ko dugal ci bopp xale gis nga léeg-léeg nga waxtaan ak nit fekk problème boobu la am man damaa bañ sama yaay lu tax nangam nangam damaa ba hee subhanallah gis nga bu la yàlla mayee ngay waxtaan ak nit ñi ñu di la wax pro da ngay xam ni gis nga àddina bi léeg-léeg machakil yi am jàdd sharia ci boppam moo koy waral gis nga da ngay jëmbat xale bi mu bañ baayam bañ baayam parce que lim féeteeg yow bañ yaayam parce que lim féeteeg ila axir yi yooyu bokk na ci musiba yi gën a rëy nga xam ne ñooñu moom daanaka adawatul abad lay doon da ngay def sa baay ab noon ba faaw am na ñoo xamante ni duñ mas a seeti seen baay lu ko waral parce que li seen yaay doon jëmbat seen xol duñ mas seet ila axir yi te it waxoon naa bii passé conséquence yi gën a bon bokk na ci xale bu am ñaari kër xale du am ñaari kër de wala ñetti kër kër baayam kër yaayam kër maamam seetlu leen li ma leen wax gis nga xale bu am ay kër rek fukki xale yoo dajale yu am ay kër juróom-ñetti xale yépp kenn du ca yaru ñaar rek a yaru te ndimbalam yàlla la ñuy am gis nga loolu lépp ay conséquences la sunu borom ni aw wala boog faariquhun na nga teqalikoo soxna si maarufi ci njekk teqalikoo ci njekk sarrixuhunna saraxan jamilan yow soxna si bi nga koy takk foo mën a jaar fexe nga ba am ay bagage am nangam am nangam wuti oto bu ko bu ko jëli maandu teg ragal yàlla mooy utal oto bu ko yóbbu loolu mooy bi maaruf dangaa waaxu woon dem ci ay way juram ñaan waaxu waatal dem ci ay way juram wax ñu bare bari waccin wu ñaaw la ñuy wàcc dañuy wàcc ba noppi duñ nangoo dem seeni këri gorom am naa ko ma dikkal jamono yi passé bi ñu waxtaane ba ci biir waxtaane ma laaj ko ni ko diir bii nga ma wax ni ma soxna saa ngi seen biir kër dem nga fa mu ni ma déedéet yaa ngi ko yónnee dund mu ni ma déedéet am ngeen doom mu ni ma waaw ma ne ko yow yaa njëkk a def erreur yow ma ne ko erreur bu rëy nga def yaa ngi may dox looloo xam ni ah yàlla moom ndam de waaye nag yay na nu de booba léegi comme nee nga yow waccoo ko sa soxna la yaa ko war a di dundal ñaareel même boo ko dundalul sa doom juy nàmp la yore da nga ko waroon di jox foofu loolu mooy lislaam waaye fi mu nekk nii bu ñu demee yagar yagar naan dañuy wax lee bu nu ko waxee yay nañu tey da ngay gis koo xamante ni tànkam du fa jaar du woote du wax du ak lu mën a xew defal sa waru gar yow dundal ko rek. wala ma faariquhunna teqali ko nga bi maaruf ci njekk yóbbu ko ci ay mbokkam bul dóor bul ñaawal bul wax wax ju bon ah. bu ñuy ñëw ci yow andi woon na ay bagages yu am solo même bu fekkee mënoo koo delloo lépp it yëkkati aw cent mille bu dee am nga ko cinquante mille bu dee am nga ko jox ko ko loolu mooy bi maaruuf mooy njekk sunu borom ni wa ashhidu na ngeen wut seede daway adlin minkum ñaar ñu maandu ñu bari dañuy fasati lu am seede te am na ñuy fayli te du am seede ñaar yépp islam da koy tere gis nga ñàkk seede gi bokk na ci li muy jur mooy kii mën naa wax lee kee weddi ko jamono yi passé am nañ benn cas bu mel noonu kii ni fase na ko ñett ndaw si ne ñett yoon la ma fase ko góor ki ni matul ñett coow li ni kur lu ko waral amul amul shahada amul seede ndaw si waat wàcc mu ni mat na ñett ku góor ki waaj wàcc ni ko matul ñett léegi foofu kan moo koy régler gis nga saa boo ja moo tax gis nga mbokk yi sharia faw ñu jàng ko di ko appliquer na gis nga yàlla ku am fulla la ci diine bi saa boo jàddee sharia rek wa man yataadda xudud allah gis ngeen ko de wa man yataadda xudud allah faqad zalama nafsa tooñ nga sa bopp ay problème yu dul jeex nag te léeg-léeg nag day dem ba tribunal indi musiba yu rëy musiba yu rëy rëy rëy rëy waaye bu njëkk ndeysaan ci la sutura ëppoon léegi da ngay dem tribunal fekk ñuy àtt jëkkër ak jabar la hawla wala quwwata illa billah moo ma nangam taan ma nangam taan ko da ngay dégg ni ñu ko wax ci kanamu nit ñi waaja daa ñëw ba ci kanamu qaadi yi taxaw soxna si taxaw ñu ni soxna si waxal mu ni moom na wax waay qaadi yi ni ku góor ki waxal mu ni ko lan laay wax mu ni ko waxal li ngeen jot lu leen fi indi mu ni ko ah kon lan doon dund ci biir néeg bi laay nettali lépp mu ni baal naa ko nañ dem baal naa ko xaadi ni mu ni ko baal naa ko bu fekkee dama koo tooñ bu dee dama tooñ moo tooñ baal bu dee dama ko tooñ baal naa ko léegi nan dem man du ma nettali mukk sama sutura si biir néeg fii allahu akbar gis nga fii may wax ak yow am na góor ñu wàcc seen soxna ba tey kenn mënta xam lu tax ñu wàcc leen maa la ko wax allahu akbar am na de am na de gis nga am na góor ñoo xam ni wàcc nañ seen soxna ba sun joonu yàlla yi tey ndaw si ku góor ki jeex na kenn xamul lu tax mu wàcc ko am na jigéen ñoo xam ni teqalikoo nañu ak seen borom kër te ñoo ñaan baat ba tey kenn mënta xam lu tax ñu ñaan baat ñun ñii nañu ragal yàlla ñun ñii nañu ragal yàlla léeg-léeg nga dégg ku na ah kii jëkkëram ji ni mu baaxee muy ñaan baat moom daf dafa dof fekk am na loo xamut yaa xi noppil loo xamut bul ca dugg bul ca dugg de ndaw si fekk na lim tax mu ñaan baat lu mat a ñaan baat la waaye sàmm sutura tax ba tey kenn xamut lu xew loolu mooy bi maaruuf loolu mooy bi maaruuf ñaan baat bi maaruuf te it nag léeg-léeg jigéen ji dana nekk ak borom këram gis lu jar ñaan baat te du ko def mën naa dem ba sës ñu bari ci ñun dañuy dem ba jaakaar ni sës nañ fekk sës a góode am na bunt boo xamagut yow moo tax diisoo am solo benn bis asma bintu abi bakar ku nekkoon borom këram hmm? Zubayr ndeysaan góor ñu xamuñu dara ndeysaan góor ñu xamuñu dara jigéen ñee ko tontu Zubayr moo ne woon borom këram Zubayr bokk na ci al asharatul basharun bil janna def na xam ngeen loolu fukk yi yonent bi wax ni yéen moom dee leen tee tàbbi àjjana allahu akbar ni'ma zawju jëkkër ju baax a ngoog waaye dafa tàngoon tàng naqari deret ba la hawla wala quwwata dafa tàng ba tàngoor wi jéggi dayo asmaa ji dund fitna boo xam ni ndax am na ci yoo xam ne bindin la benn bis mu ñëw ci baayam ni ko bàyyi man daal fi ne sëy bi moom génn ci laa bëgg man lii xaw ma ko koo xam ni kenn mënta dab bànnee xam koo xam ni loo wax ba kalaame Aboubacar bàyyi ko muy wax di wax di wax ba àggal Aboubacar ni ko sama doom ndoom sama bu na yati bu la yàlla wërsëgalee jëkkër ju baax danga koy tee ndax amaana mooy nekk sa jëkkër ca biir àjjana ndax moom dina dugg bu soobee yàlla wasalaam allahu akbar mbokk yi bàyyi tamit goro yi léeg-léeg léeg-léeg léeg-léeg dinañ mën a defar de moo la tooñ yaa ko tooñ dafa naqari deret dafa neex deret moom ha warul la woon def lii ah doomi jàmbur la yore yooyu yëpp wax ko ndoom sama bu la yàlla wërsëgalee borom kër bu baax da nga koy muñal te nga xam ni ëllëg amaan na nga nekk soxnaam biir àjjana ndax moom moom dina tàbbi moom jeex na ndaw si bu baat ay bagaasam dem toog muñ ndaw si bu baat ay bagaasam dem toog muñ gis nga Zubayr dafa fiiroon a fiir benn bis asmaa nee na yonent bi daf maa romb ak saxaaba yi ñu yéeg ay gileem fekk mu ngi yelu ngandam sayu mat parce que tool ba mu am dafa sori yonent bi ni ko kaay ma yób kaay ñu yóbbaale la sa say wi mu ne ko bàyyi garaaw dem leen rek baax na xam nga lu tax mu def loolu nee na dafa xalaat ni Zubayr dafa fiir dafa fiir lool bu ma gisee ma ak Zubayr ku muy fiire yonent bi rek saxaaba yi la àndal mu ni ma xoolal xoolal mbir mi fi mu tolloon xam nga fiirewul loolu waaye moom moo xalaat loolu rek mu ni damay xalaat bu noo dema rek baax na bi mu ñëwee nettali ko Zubayr Zubayr ni ko yow lu tax ñu romb la kay doo leen jox ñu yóbbaaleel saw say mu ne ko sa fiiraange gi laa xalaat moo tax joxuma leen say yu ma yenul ko sama bopp gis nga ki gis nga góor gu nekk am na sikk sum am jigéen ju ne am na sikk sum am léeg-léeg góor am lu ëpp benn sikk léeg-léeg jigéen am lu ëpp benn sikk da di sikk nag boo ëpput te nit ki boolewu ci reewantu te it boolewu ci yëfi maa tey te fitna ja àggul ci nag bëgg ëpp su boobaa muñal lan lay wax muy ko góor ka muy ko jigéen ki sunu borom mu ni wa ashhidu na ngeen wut seede daway adlin minkum ñaar wa aqimu shahadata na ngeen matal seede yi lillahi te yàlla tax leneen nga gis koo xamante ni seede yi da cay dàq ginaar waxaale ay soxlaam de dugal ci yu ci bokkut farfarloo sot sotloo léeg-léeg seede bi ñu laaj la nga wax lu nekkut fekk faral ndaw see tax wala faral ku góor kee tax seede dafa garaaw de loo seede fii di nga ko seede fee bis boo seedee ba sa yëpp jàmbur tas yow tonk nga yow te warta tas boo seedee ba sa yëpp jàmbur takkuwaat te warta takku tonk nga yow fase mi mat na ñett matul ñett nga ni man maa ko seede matul ñett te fekk mat na ñett ñuy àndaat fekk li ñuy def njaalo la yow moom bu soobee yàlla mu rubba topp na la yow li wolof nan dugg nga ni rubba yow moom keroog moom dugg nga ni rubba yow it aqimu shahadata lillah seede dafa bokk ci yi nga xam nit ki bu koy def day wax lu mu xam loo fekkee lu la wóorut neen wóoruma dafa naan sàngara abu hurayra gis na ko muy naan abu hurayra yaa ko gis mu ne ah gisuma ko de xeeñ ñaqul nag sàngara nag bi ma rombe waaye gisuma ko loolu loolu na leer de waxal li am rek moom daal bi ma jegee xeeñ ñaqul nag sàngara waaye nag man teguma ci sama bët muy naan loolu mooy la sa gémmiñ xanaa sax say loxo waaye sa gémmiñ nu muy xeeñee sàngara ba ngay buusu te naanoo ko xanaa say loxo loolu kay mooy naan nga ko waaye maandu teg seedee mat toll foofu aqimu shahadata na ngeen matal seede yi lillahi te yàlla rek tax ndaw si loo bokk bokk ak moom bu mu tax nga far ku góor ki loo bokk bokk ak moom bu tax nga far te it seede yi nañ nekk ñaar zaway zaway àddilin nañ wax su fekkee amuñu ñaari góor ñu wut ñeenti jigéen keneen ni lan ñetti jigéen keneen ni lan benn góor ak ñaari jigéen fa rajulun wa mra'atan nan koy defee fee noonu lañ koy defee mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tadhakkir ca nañ koy defee ca aaya bor parce que lu tax góor day peese ñaari jigéen moo taxit mu war a yor mën a yor ñaari soxna nag moo tax mu mën a yor ñaari soxna waxuma mu war a yore de dégg leen li ma wax baax waxuma mu war a yore mu mën a yore laa wax war a yore mën a yore rek bokkuñu li mën a nekk ak li war a nekk saa buñ dajee la mën a nekk ay nekk la war a nekk toog fee dégg ngeen wolof li mën a nekk ak li war a nekk saa buñ dajee te faw benn am ci li mën a nekk ay nekk li war a nekk toog xaar xaayda boobu nag na ko góor ñi yóbbaale ut leen ñaari seede te nañ seede ngir yàlla sunu boromu ni daalikum lii ma leen wax nii yuazu bihi ci la ñuy waar man kaana yuminu billahi képp gëm yàlla wal yawmil axir allahu akbar mbokk yi xool leen xitaab bi ni mu fooree jàppal ni yow fi ne bi nga amee problème te ndeysaan nit bu amee problème dootul neex a waxal seetlu ngeen loolu gis nga jafe-jafe yi xam nga lu koy lu koy yokk mooy olof yi dañuy wax ni gémmiñ guy nàcc ah borom du wax jàmm gémmiñ guy nàcc borom du wax jàmm danga koy bàyyi ba mu bopp moo tax gis nga léeg-léeg ñu bari ñi bëgg a régler problème kut kut kut kut kut léeg-léeg dañuy échec ndaw si ñëw waaw mi ngi wax bay bët yaa ngi xonk cuy gémmiñ gaa ngi nàcc mi ngi nii daf ma dóor ah nga nga bëgg léegi léegi affaire bi réglé wu déedéet da nga koy wax mu sëlmu waxal a'udhu billahi minash shaitanir rajim jullil ñaari rakk bu dee waxtu suba jox ko mu ndékki bu dee waxtu ngoon jox ko lum lekk nga ne ko toogal fii xaar ma bu soobee yàlla lii kay léegi dana ko régler fekk yaa ngay nekk nekk lu ci ay leneen fekk li nga nekk du dara gis nga même xale yi sax gis nga xale yi boo leen dee yar noonu da nga leen koy yaree léeg-léeg mbir day am yow yarkat da ngay xam ni lii du lu ñuy régler fii ma toog nii nii nii boo ko régler da ngay échec da ngay xaaratu damaa jàpp fekk jàppoo dara da ngaa jàpp kay da ngay xalaat yóbbante boobu ñun yarkat nañ ko bàyyi xel gis nga léeg-léeg kalaame ñëw man ngaa yore ñaari soxna su may benn kalaame jékki-jékki nit sarax ci sa bët yi wala ay doom wala ay wujjante ci biir kër wala ay ndongo wala ay nangam am na masala yoo xam ne damaa jàpp waaw neel da ngaa jàpp wax nga dëgg kay da ngaa jàpp ndax sa xel mi day xalaat gis nga boo jógee rek bëgg ko régler da nga échec day fekk yow nga xalaat day fekk mer mi giif day fekk nga jëm na mën a neex a waxal yooyu yëpp ci asaali bu tarbiya la bokk sunu borom mu ni lii de maa ngi ciy waar koo xam ni gëm na yàlla gëm bis penc mbokk yi sàmmonteeg lii de mandarga mooy wane ni kii gëm na yàlla gëm bis penc ñàkk koo sàmmonteel firnde la yu lay wan ni kii de àllaaxiraak bis penc moom daanaka yitteelu ko sunu borom mu ni wa man yattaqi llaha képp koo xam ne ragal na yàlla ba muy fase mu xool sedd bu baax a baax a baax a baax ndax war naa fase mu waruma fase wa man yattaqi llaha ba mu demee ba gis ni war ta fase mu kon ni tee ndox si ndaw si muñ wa man yattaqi llaha bi mu demee ba gis ni kii faw ñu fase ko mu fase ko fase mu rafet wa man yattaqillaha te ba mu koy fase mu fase ko ca fan bëgg nga fase fa fasem sunna bañ a fase fasem biddaa wa man yattaqillaha bàyyi ko mu eddawee ci biir kër gi wa man yattaqillaha rafetal nekkin wa wa man yattaqillaha ba mu ko mënee jëlaat mu jëlaat ko ba mu ko dëjal sarrixuhunna sarahan jamila lii ku ko def yajal laku maxrajan yàlla mu ni problème boo dugg mag etu la solution al allaama al cheikh nasir abdurahman abdurahman saadi nee na ragal yàlla gi war dëgg-dëgg nit ki bu ko sóoroo ci sëy bi conséquences yi ñu doon séentu yépp ci sëy bi wala après sëy bi maanaam yàlla dina la ko teggil waaye nag mu ni sëy a taxoon ñuy wax waaye nag romb na sëy même yeneen mbir yépp boo ci séendee ragal yàlla te it loolu wér na al ibratu bi umumi lafzi la bi xusuusi sabab wa man yattaqillaha képp ko ragal yàlla ci li muy def ah nga xam ni yàlla ngay sédd xam nga mooy li ma leen waxoon bii paase rek ñun dañoo yaakaar ni ngóora mooy ndaw si may ma sama baat yow nga ne ko may naa la sa baat loolu mooy ngóora loolu du ngóora de loolu góor gu yambare moo koy def loolu wala yàlla xam ne loolu yambare la maanaam loolu day mel ni yow sa poids léegi ak poids ndaw si ñoo tolloo maanaam moom mer na rek ni may ma sama baat kon amoo maîtrise amul maîtrise yéen a bokk yam te yaa war a ëpp maîtrise moo tax it ñu bari ci ñu koy def après da nga koy réccu rawatina nag bu ñu la waxee lu mel ni li ma waxoon dars bi passé ah yow xanaa solo tuba yow nga tëdd fi nga tëdd ñu ne la yow xanaa solo tuba yow xam nga yooyu nag wax dëgg yàlla daa mën a wokkub xol nag am na koo xamante ni waxuma ne bu ñu la ko waxee loolu waxuma ne sax mu fase waaye day jug sax dóoraale benn yoon faf bu dee xanaa solo tuba nga ne ko ahan kay sol naa tubay damaa sol tubay ju dëgër tubay joo xam ne caaxaan tekkiwu ko da ngay pànk tuuti nag maanaam am na yoo xam ne fi mu nekk nii faaw nga pànk tuuti nag doog caa génn gis nga boo ko deful xaabar xaabar yi xaatar xaatar yi nga koy bëgg a fajee te xaabar xaabar yi xaatar xaatar yi bunt buñ fëgg duñ ko tijji bunt buñ fëgg duñ ko tijji ragal yàlla subhanahu wa taala sedd ci kaddu yi ndaw si waxit mu ragal ci yàlla de ah mosoo maa yore mosoo maa jëndal nangam nangam yow bu la mësta jëndal nangam xanaa nga dee mas ngaa gis ko yore jabar te doo ko jëndal dara loolu daa mën a nekk loolu mubaalaxa la rek mubaalaxa mooy di wax ba wax yopp rek sunu borom ne ma yattaqillaha képp ku ragal yàlla yaj'al lahu maxraja yàlla dana ko wutal buntu gis nga léeg-léeg nga fase ba pare benn procédure bu metti daal di topp ci fase ma procédure yu metti xam nga lu waral métit woowu mooy yàlla dalaa seetaan yow parce que dangaa jëfandikoo ragal yàlla ci fase mi fase nga ci lu jarut fase ah léeg-léeg nga gis ku fase ci lu ñàkk fayda nag allahu akbar léeg-léeg yàlla xam ne ni booy fay li ñuy waxtaan ci buntu fay li buñ la waxee ndaw si lu mu def ba ko góor ki fase ko yow doo bëgg lu dul rek jàpp ko góor ki parkaat ko dóor ba mu bëgg dee ndax loo xam ni dafa ñàkk fayda ñàkk fayda nga xam ne xale buy doog a dugg ci buntu néegu sëy sax war ta fase jabaram ngir loolu dama ko yónni mburu ni ko demal jëndal ma ci boutique mu bañ loolu daa loolu daa jar fase cim loolu góor gu yaabar xabar xabar xabar yi góor gu góor gu amul ful la dëgg dëgg dëgg dëgg mooy fase jabar ci loolu maanaam wax dëgg yàlla fase nag lu lu rëy la loolu kenn du ko def ngir mbir yu ñàkk fayda déedéet sama sama sama sama sama panlo bi laa ko waxoon na ma ko fóotal fóotu ko loolu daa jar fase loolu loolu dafa rusu sax nekk lii ah sama yaay la doon jotel nag ba dóor ko nag ah mbir maa ngi bëgg ëpp nag sama yaay la doon jotel ba wax ko lu mu ko war ta wax ah waaw mbir maa ngi bëgg a ëppi loxo nag léeg-léeg di mu waasana di peese mbir yi dafa am solo sunu borom mu ni wa yarzuquhu dinaa ko wërsëgal min xaythu laa yaxtasib fu mu ko foogeewul woon wallahi gis nga ku góor ki dana ragal yàlla ci fase mi ba ndaw si dem yàlla wutal la soxna soo xam ni moo gën ka nga wàcc téeméeri junni yoon fekk wa yarzuqu min xaysu laa yaxtasib moo so moo sax nji ma nga jiwoon ca tool ba tuddee ko wa yarzuqu min xaysu laa yaxtasib moo sax jigéen gi dana nangu àtte yàlla nangu dogalub yàlla ndogal dal na ci kawam moo xam dañ koo tooñ fase ko moo xam mu tooñ ñu fase ñu wàcc ko muñ eddawoo ca kër ga bañ a gedd def li ko yàlla sant ba mu jeexal bu ay bagaasam dem yàlla tàggat góor goo xamante ni yeex naa cee jot ngay wax yeex naa cee jot benn bis yonent bi dafa toog sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg te léeg-léeg nga fase nag fekk war a woon a fase de léeg-léeg ndaw si ñaan baat fekk warta woon a ñaan baat de fekk kenn ku ci nekk da ngaa bëgg a dellu si ndaw si daa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko man day dama amoon jëkkër ju ñuy wax rifaata mu wàcc ma beneen waaye bi ñoom abdourahman xaw ma nan daal di koy takk mu ne ko waaye yonent bi kii mënumaa yore kii moom li mu yore soxlawuma ko sama jëkkër jee laa bëgg a dellu wax ji maa ko rafetal noonu waaye xaw naa gën a foor noonu lan ndaw sa wax moom gën naa foor kàddu googu maa wax loolu ndax ci jàkka ji yonent bi ni ko ha mu ne waaw waaw mu ne ko ah bu dee demee ne noonu de moom bu la kii wàccee te fekk jotu leen a ànd ci kaw lal de kee du la mën a takkaat faaw ngeen ànd ci kaw lal ba pare mu doog lay wàcc xanaa kee di la doog a takkaat tey nag nekk baax da yëgoo yu compliqué am na foofu tamit yu mat a bàyyi xel moo tax wa yarzuquhu sunu borom dana ko wërsëgal min haythu la yahtasib est-ce que xam ngeen ni léeg-léeg xam ngeen ni waxoon naa leen facette du solution ndax solution ku amul solution la waaye léeg-léeg léeg-léeg fase day gën ci ñoom ñaar ñëpp gis nga léeg-léeg jigéen danañ ko fase mu dem foo xam ni foofaa gën ci moom fa mu jóge góor dana fase takkaat jigéen joo xam ne moo gën kam fase léeg-léeg da nga fase fekk waroo woon a fase moo tax it faw fay li amaat parce que kenn ku nekk day dem xam ni waroo dem moo tax nga gis say dem ba mu yàgg rek ñu ne nañ leen boolewaat gis nga ñi yàlla tudd ni ñoo war a ànd ñoo war a ànd te yàlla ko kéemaane la léeg-léeg sa fasafase day ñëw pour saafara dara day ñëw pour saafara dara parce que am na ay responsabilité yoo xam ni pour ndaw si xam ko faw ñu wàcc ko mu dem ba toog kër baayam ba pare buñ ko faylee ci lay doog a baax est-ce que xam ngeen ne léeg-léeg jigéen ñu fase ko ba takkat ko mu yaru mbokk rumbux rumbax laa wax kay nig wal xam nga lu ko waral mooy dafa am jot toog ci biir iddawu muy xalaat léeg-léeg góor dina wàcc temps bi mu toog ñàkk soxna si ah léeg-léeg so soxna tamala loo xam ne tamit moo tax jigéen ñi nag bokk na ci bokk na ci mën a sëy mooy sa jëkkër nga di ko tamal loo xam ni boo boo boo fi jógee rek mu yëg ko loolu laa leen joxe misaal waaja dañuy waxtaan ba mu yàgg rek mu ni bëreet jug dem ñu ne ko foo jëm mu ni sama kër laa jëm man mënumaa toog fii sama jabar daf maa reewal ah mu ni jabaram daf koo reewal loolu mooy lan mooy jabar ji ndax waa ji du wax jabar ji teg ci baat lekk heure lay tege naan heure lay tege bu tagee ci kaw ndaw si toog ci maanaam daal moom bu nekkee biir këram buur lay doon te fii bu ñëwee gars yi di ko joxoñ ak di ko kuntaa ba loolu nag moo tax sa jëkkër da nga koy tamal loo xam ni ah léeg-léeg léeg-léeg di nga ko tamal loo xam ni même bu la waccoon ba nga demit su ma waay la nga gis góor gi sagu sagul naa xanaa ngeen dox ci jàmm rek fekk moom moo bëgg ñu dox ci jàmm moo bëgg ñu dox ci jàmm de parce que am na lu mu doon am te amatu ko am na lu mu doon am te amatu ko beneen bi ci des mooy léeg-léeg ci stratégie yar tey soxna si mën naa def musiba junni weñ ñu baal ko mu defaat ko ñu baal ko mu defaat ko nga wàcc ko gis nga boo ko wàccee même bu ci nit ñi doxee jàmmit xawal diibal tuuti pour yaraale ko donte yow bëgg ngaa jëlaat sax waaye ne leen may leen ma xalaat ci fekk xalaatoo dara dara nga xalaatoo da ngay bàyyi temps bi rek mu xaw a kii tuuti. gis nga diggante soosu kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar dana xalaat rawatina ku jigéen ki su fekkee moo tooñ rawatina ku góor ki su fekkee moo tooñ yii yépp nag ay asaali léeb la ci wàllu yar. borom bi subhanahu wa taala mu ni borom bi subhanahu wa taala mu ni wa yarzuquhu min xaytu la yaxtasib borom bi dana lay wërsëgal ci fu mu ko foogeewut woon mu ni wa man yatawakkal ala allahi képp koo xam ni wéeru na ci yàlla wéeru la wax de wéeru sa mbir yépp ci moom wakkiilu wéeru jël ay sabab nag jël say sabab ba nag doo ko wakkiilu ci yàlla wakkiilu nag ñu bari dañu yaakaar ni mooy jël mbir ay yàlla baax na yàlla baax na yàlla kay moom bi nga jot da nga fekk mu baax gis nga fiir gii ñu ne day këtt baaraam boo jël sa loxo teg ko fii bu soobee yàlla day këtt sa baaraam moom kay da ngay téye fii sa loxo bàyyi fiir gi ak jinax ya doo ko wakkiilu ci yàlla kon loolu mooy ittixaadul asbaab képp ku wakkiilu ci suñu boroom fa huwa xasbuhu yàlla mu ni doy naa ko allahu akbar wéeru nga ci lu dëgër ku wéeru ci yàlla wéeru nga ci lu dëgër loo xamante ni du daanu sunu borom ni inna allaha yàlla baaligu amri am na qiraa ab baaligun amra ak baaligu amri yépp ci ay riwaayaat sunu borom baaligu amri ay mbiram lépp a jot lépp a mat lépp lañ réglé lépp a sotti inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar wa kullu shay'in indahu bi miqdar ah qul fa lillahi alxujjatu albaaliga yépp yàlla subhana taala mbiram yépp a yemb moom sunu borom ni qad jaala allahu yàlla dafa def li kulli shay'in mbir mu ne qadran yàlla da ko wutalub àpp kañ ngay judd kañ ngay dee kañ la wa sa wërsëg di ñëw kañ ngay ñàkk kañ ngay feebar kañ lañ koy wàcc kañ lañ koy fayli yooyu yëpp yàlla moom réglé na ko ba noppi sunu borom ni wallaayi jigéen ñooñee nga xam ni ya is na ñoom dañoo dem ba magal minal maxiidi ba gisatuñ règle naagu nañ ci dootuñ gisati règle jigéen ji romb na ñeent fukki at jëm juróom fukk nga xam ni gisatul règle ci misaal ñu fase ko jigéen jee moom ji njëkk ji moom nan lay eddawoo jigéen ji nga xamante ni gone la ñu fase ko mu nekk ci sëy bi nu muy eddawoo jigéen juy gis règle seen téléphone yi da nga xumb rek ah ñetti set am na ñu ne ñetti set am na ñu ne ñetti fóot ndax ñetti fóot ak ñetti set bokkul ñetti gis règle ak ñetti fóot ak ñetti xam ne am na teqale ndax bii dañ koy aju ca set ga bii ñu aju ci gis règle ga waaye lu mënti am ñetti set bu fekkee ndaw si am na ko iddaam jeex na léeg-léeg nga def bàkkaar bu rëy te fekk wax lu la leeru moo ko waral est-ce que xam nga ni ñetti set ajuwut ci ñetti weer xam ngeen loolu ñetti set ajuwul ci ñetti weer de am na kenn ci soxna ya ba ko borom këram wàccee mu set setaat setaat nu laaj ko mu ni set na ñu boole ko ka ko takk am ko wër ni man maa maye ndaw sa ndaw sa maa ko maye mu ni man maa ko maye te fekk ci ëdd jàmbur laa ko maye xoolal bu bàkkaar mbokk yi ni mu rëyee te am na yoo xamante nii nag loo baax baax mën a bare da nga koy bàyyi noonu ba nga dajeeg sa borom xam nga lu ko waral dafa am loo xamante ni maanaam gàkk gàkkub diine da caa aju te xifdul ird min maqasidi sharia ba ay nit di ma woo di ma laaj loolu est ce que yaa def loolu diw yaa ko may diw te fekk bi mu koy mayee booba ndaw si mooy fóot man fóotuma mooy edda man eddawuma bu nee mat na même mu fekkoon nekkul dëgg man day sama responsabilité déedéet waaye gis nga ndaw si bu nee set na set na te mbir mi boo ko nattee ñetti weer da ngay juum parce que am na jigéen joo xam ne ci biir ñett ñaari weer mën na cee fóot ñetti yoon loolu day am te du doon feebar du doon dara moo tax gis nga wax ci loo xamut wa an taqulu ala allahi ma la taalamun musiba la de mbokk yi man ngaa yàq say jaamu yàlla te fekk lu wóorut nga wax ma ni leen loolu kay jërul sax sonn man awma ci ma dem leen ci ndaw se comme moom moo joxe kàddoom laaj leen ko bu fekkee moom wax na dëgg rek kon ñun ñoo juub su fekkee moom nee na seetoon na matal na kon kay loolu ko keneen ko wax amul solo ndax yàlla mbir moomu am na fu nuy toll ndaw si la ñuy laaj wala yaktum na maa xalaqa allahu fi arxaamihinna in kunna yumina billahi wal yawmi al axir wa buulatukunna axaqu bi raddina fi dalik ay yaa ngo moo tax gis nga léeg-léeg wallahi man ngaa daanu jël bu rëy rëy rëy rëy sa jaamu yàlla yu bari yàqu te fekk ci yu sew sewaan yi nga koy yàqee moom la benn borom xam-xam di wax mu ni da ngay gis koo xam ni mi ngi naan waaw lan suun ndax dagan naa lekk da corned-beef ndax dagan naa lekk xamuñu ndax yàpp ñoom ndax boo ko joxee corned-beef sax mu ne du ko lekk ndax wóoru ko ba pare mi ngi lekk lu gën a bon corned-beef parce que mi ngi wax ci bokkum jultam lu ko wóoru xoolal wax jooju ni mu ñoree moo tax suñu borom mu ni jigéen ñii nga xam ni ñoom ya'is na min al mahid ñoom gisatuñu règle min nisaikum ci seen soxna yi inirtabtum bu ngeen amee sikk sàkka ci nii la wala nee la war a iddawoo fa iddatuhunna seen idda nag su boobaa thalathatu ashhur waaw kookum day faw mu jël ñetti weer yu mat parce que règle ci lañ doon sukkandiku wala set gi te fekk loolu amatul su boobaa ñetti weer la ndaw ndaw si biñ koy fase magal na bi magalee gisatul règle bañ mën caa sukkandiku pour mu eddaw dañ naan ko ñetti weer ngay toog toogal ci misaal janvier février mars noonu la noonu la nu mu doon kon aha jazakumullahu xayran benn pièce la woon jazakumullahu xayran du doon janvier février mars hijriya lay doon dañ naan ko toogal muharram rajab shaaban ñu ngi ci wan weer ñu ngi ci rajab dañ naan ko toogal ah waaye nekkul ci premier rajab de tey la lan 10 rajab tàmbaleeg ci 10 rajab di wàññi baf kañ déedéet 10 déedéet déedéet 10 rajab bu jàllee am nga ñaar fukki fan boo demee ba 10 shaabaan am nga weer boo demee ba 10 ramadan am nga ñaari weer boo demee ba 10 shawal am nga ñetti weer ci weeru wolof yi wolof nag am na fulla lool xanaa pël yeeg séeréer yi bokkuñ ci ci weeru lislaam yi bokkoon ci lañ koy wàññi waaye weeru tubaab yi kenn du ci wàññi weer yi nga xam ne mooy suhurul qamariya yi donte ñun ñëpp ñoo moom lépp waaye nag kenn du ci wàññi loolu nañ ci bàyyi xel parce que li ko waral mooy dafa am ay différence yu ci am man nga caa wàññi moo tax léeg-léeg nga seet nga di gis mag yi def benn erreur waa ji day faatu 28 février ñu ne te 28 février ni kon ñeent fukki ñeenti weer ak fukki fan nga war a kii gis nga boo boo ko nattee ci weer février ci février boobu bis biñ wax ni ndaw si ca la war a sumi day fekk passé na ko seetlu ngeen li ma wax gis nga bis biñ wax ni ndaw si ca la war a sumi day fekk waroon naa sumi bari ko waa taati démb ñu indi ko ba tey yooyu masala ay diqaaqul masail la yu mat a bàyyi xel suñu borom mu ni ñooñu in irtabtum fa iddatukunna seen idda thalathatu ashhurin ñetti weer la wallaahi ak jigéen ña nga xam ne kon wallaahi dafa continuer wallaahi ya'isna min almahidi min nisaai in irtabtum fa iddatukunna thalathatu ashhurin wallaahi lam yahidna bul taxaw da ngay continuer wallaahi lam yahidna ak jigéen ñi nga xam ne ñoom mataguñoo gis baaxit nag ci àtte boobu lan bokk gis nga de wallaahi lam yaxidna iddatuhunna mooy salaasat ashhurin ñoom it aaya ji tegtal la bu lay wan ni jigéen mënees na koo maye mu nekk gone lool jabar ji nga fase te gisagut baax kooka kay xam nga ne ngonee tax waay am nañ ay texte yu bare bare bare yu mën a wane loolu seen luwaay nag yéen nanguwut loolu waaye nun moom suñu luwaay nangu na loolu xëy na nag boo nekkee ci réew ñëpp la doole nag bu fitna naree am nga topp loola ngir loru waaye daal jigéen daal ci gàttal moo taxit jigéen ji bu amee fukki at ak nangam waxuma juróom-ñett de fukki at ak ñett jëm ñeent boo ko mayewul rek mu maye may góor ñi boppam loolu ngeen gis fi mu nekk nii jigéen bu tolloo ci sëy gaawal maye gis nga jigéen dafa am ay hormones yu nekk ci moom bu doon ci oto mel ni ay organes yu nekk ci moom day nelaw gis nga seetaan film yu bon yi wala wax yu bon yi wala journal yeeg wala portable yi wala facebook wala yi nga xam yu bon yi ñuy génne day yee hormone yooyu moo tax nga gis gone gu juddoogut di gis baax parce que da koy déclencher nga gis gone gu juddoogut am ay ween nga gis gone gu juddoogut léeg-léeg laaxul du chaque jour moo ko ay léeg-léeg loolu da koy waral laa wax nga de gis gone gu juddoogut commencé def ay caaxaan parce que yooyu da koy tax mu yeewu yéen yarkat yi wala ñun yarkat yi marxala bi gën a naqaree yar nit moo nekk noonu boo dul naxante doo dem fenn gis nga jigéen bu commencé yéegi ween rek boo koy yar day defee ndànk kaa nopp boo deful ndànk rek mën na laa trompé yow ndànk ngay def rek moom kay gëll guuse rek di naxante ba am la nga bëgg gis nga bu dee xale bu góor la boo deful ndànk day defee ni fi mu nekk nii moom ngeen xeex moo ci des ëppatoo ko doole. mooy sindul muraaxaqa moo tax laaj leen daara yi fi nekk nii ku nekk ndongom ndong ku sa njàng yàq yépp ci foofu jamono jooju lay yàqu gis nga su boobaa yée googu mu koy yee mooy waral gone yi di teel a xam ak mbon waaye su fekkee nit ki jëfandikoowul yu mbon yooyu du ko gis du ko dégg ilaa axir loolu yàlla mën na ko ciy musal su ko defee jigéen saa bu tollee foofa la gën mooy ñu teel koo maye da ngay dégg ñu naan diw sàngam ba mu sëyee ci fukki at ak ñett xawma lan lan lan teel a noppal te gis nga jigéen fi mu gisee baax fi mu amee ay ween carrière am tàmbali na waa léegi damay laaj jamono bi ñu toll ñun dëppoo nañ ci ni ba jigéen daanaka balaa moom 40 ans léegi carrière am jeex li ëpp ci jigéen ñi mu'adhamu nisa balaa ñoo am 40 ans 35 ans sa carrière jeex
waa léegi ki bëgg a topp ay études am bi mu amee 14 ans 15 ba 30 doog a am jëkkër kooku ñaata at a ko dese bu fekkee 35 te la carrière am nar a jeex seetlu lii ma lay bëgg a wax moo tax gis nga ku ci ñi ñi ñi nga xam ne ñooy topp seeni étude ba loolu ñu doog a sëy ku ci sëy rek li ci ëpp ay problème la sëy bi am xam nga lu ko waral góor gi dalay takk ngeen dem tuuti mu yëg ni li mu soxla woon am na lu fi nekkut maa la ko wax góor gi day takk dem ba ci biir yëg ni li ma soxla woon ci jigéen nekkut fii effectivement parce que carrière bi dafa dafa dafa dafa dafa dem lii ma la wax nii sondage la boo xam ni wool ku la neex nag ci gëstukat yi mën a gëstu ñu gëstu loolu xool moo tax ñi nga xam ne dañuy def lu mel noonu li ci ëpp sëy bi daanaka day am ay benk ñenke mbaa ñaari fan ñett rek coow am mbaa boog teqali koo am
wala li ci des lii ñuy jël.
wala li ci des lii ñuy jël ko lii ñuy.
lii ñi communication.
ah di war a waaw kon moo ñëwee wax loolu mooy seen ligne téléphone yi kon gis nga yu mel noonu toujours moo tax gis nga njàngaleem lislaam dañuy bëgg gone gi ñu teel koo maye mu bañ a xam bon tey nag wala iyaasu billah musiba yi mooy daanaka gone goo gis xam na lu bon xaana waxtul azar aywa borom bi subhanahu wa taala mu ni wallaahi lam yaxidna jigéen ñi nga xam ne ñoom tollaguñu fu ñuy gisee baax ñoom it seen edda ñaata la salaasata ashhur ñetti weer su fekkee ndaw si dañ koo may jëkkër jëkkëram wàcc ko te fekk tollagul fu muy gisee baax ñetti weer yu mat sëkk lay toog jigéen ji su fekkente ni moom dafa dañ koo fase te fekk gisatut règle su boobaa day toog day toog ñetti weer wa ulaatul ahmaali ulaatul ahmaal mooy jigéen ñi nga xamante ni dafa ëmb ajaluhunna ab eddaam nag an yadaana xamlahunna mooy mu daal di imbi mu am doom jeex na kii moom moo ci gën a gaaw moo tax bii passé bu ngeen fàttalikoo ci sunu aada ñun dañuy wax ni jigéen ju ëmb kenn du ko fase ñun loolu la ñuy faral di wax ngir ay sentiment waaye gis nga sentiment yu jur yu saf sàpp lay doon ci ndaw si après ndax soo ko fase woon tey te te nar nar ngaa fase ba nar a fase fase ko ci ëmb bi moo gën nga bàyyi ba mu am doom ndax boo ko fasee ci ëmb bi eddaam mooy ay daana xamlahunna mu jeex li gën a yéeme mooy boo ko fase woon tay tay tay tay mu am doom ginnaaw suba ginnaaw suba bu paree nifaas jeex an yadaana xamlahunna ëmb bi ëmb bi rek te it li gën a yéeme mooy même bu fekkonte ni jëkkëram daa faatu muy ténj ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa am ndaw suñuy tuddee subayata al aslami subaya abu sanabil moo nekkoon borom këram ci saxaaba yu baax yi la mu faatu bàyyi ndaw si ak ëmb bi mu faatoo ñu teg ci 40 jours ndaw si am doom li may wax ni ñëw na ci ay riwaayaat yu bari ñëw na ci benn riwaaya bi ndaw si amee doom ba pare mu commencé tusngalu di sol lu jekk benn waaye daal di ne ko eh xam naa boo demee sa xel mi dafa ne ci góor ñi ragalal yàlla laax sa borom kër barki démb la fi dee nga naan lan yow ndaw si daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko. beneen riwaaya bi benn waay moo ñëw laaj Abdullah ibn Abbas masala mi Abdullah ibn Abbas ni ko demal laaj ko Ummu Salama Ummu Salama daal di nettali xissa bi. nee na bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ni ko keroog ba nga imbee sala sab àpp jeex ndax saxaaba ya. at-talaaqu marratan fa imsaak maaru atasir bi xisaan ba mu wàccee dañ doon wax naan ah am na ñaari jigéen de ñoo xam ni suñu borom tuddagu leen mooy kan boo fekk suratu talaq wàccegul mooy jigéen ji tollagul ci gis baax ak jigéen ji ëmb ñoom ñaar seen masala ñëwagul ci la suñu borom wàcce saare wàcce aaya bi wallaahi ya'isna min al-mahiid ak wa ulaatul ahmaali ak ak ak ak ndaw si wallaahi lam yaxidna seen àtte daal di ñëw wa ulaatul ahmaali jigéen ju ëmb ñi nag ajalugun na àppam an yadaana xamlahunna gis nga ndaw si fi mu nekk nii bu fekkonte ni seen borom kër dafa faatu kii daal di tenji ba ñeenti weer ak fukki fan mat fekk ndaw si mi ngi ci ëmbam ñetti weer moom moo nar a gudd eh, moom iddaam jeex a gudde loolu nañ ci bàyyi xel ñun nag Sénégal lépp dañuy faral di bombarder rek eh, summi bis bis sàngam ne la ñuy summi mu xaw ma sax loo soloon bay summi foofu sax damaa xamul lu ñu soloon bay summi ndax foofu lu ñu sol amu fa lu ñu wax waxin la rek donte nag Sénégal moom da ngay summi moom ndax dañuy jël tegal la euh, muuraay tegal la kuddu tegal la fourchette tegal la paaka tegal la benn bant tegal la layu xaalis bi ñuy jaay jaale si bul ko laal kenn du jaale guddi say tànk day tàllalu sa musóor gi nii lay mel alxamis kenn du ko sangu ajjuma benn yoon ngay sangu ci semaine bi te booy sangu meer yaa lay sang yii yépp ay naxas ak kandang dong la dara saxu ci lislaam nag dara insha allah aay ji wax ci tenj bi suñ ci yeggee des na leeral ci wàllu fiq lan mooy attey tenj waaye yii moom dara bokk ci wàññil sa solo daal ci la bokk wàññil sa dem ci la bokk wàññil sa tuwaalatu ci la bokk yooyu yépp moom islaam da koo bëgg waaye nag yi ñu koy ni ñu koy defee nii moom du noonu borom bi subhanahu wa taala mu ni kon jigéen ji nga xam ne ulaatul ahmaali ajalagunna an yadaana xamlagunna mooy ñu imbi seen ëmb saa bu imbee rek même bu tegoon weer kese am doom jeex na bu paree bu gisee bu paree ci am am doom ga bu gisee guro yëy na yëy bu dee feneen fu ñuy séddale séddale lu dul guro bu gisee loolu la yëy borom bi subhanahu wa taala mu ni kon jigéen ji nga xam ni moom dafa ëmb ajalugunna àppam an yadaana xamlahunna mooy ñu imbi te gis nga allahu akbar benn borom xam-xam bu mag nee na gis nga boo seetloo islaam li mu yoonal ci jigéen bu ko jëkkëram fasee na eddawu ngir ñu xool ndax biiram set na wala déet bu borom këram faatoo na eddawu ngir ñu xool ndax biiram set na wala déet gis nga jigéen buy am rapport ak jëkkëram di sëy am na ay ferñeent yoo xam ni dafay des ci yaram wi waxuma la ferñeent yooyu mooy man yu ba tax doom mën a juddu de mën naa bañ a nekk man yu bu tax doom di juddu waaye ay ferñeent la yoo xam ni geneen góor gu ñëwoon ci diggante bi ferñeent yooyu dana jaxasoog ndoxum góor gii ba askan dina jaxasoo te duñ ko yëg mu ni wala ajabu kullal ajab mooy gis nga saabu ndaw si ténjee ñeen fukki fan ak fukki fan net day fekk lu nekkoon ci biir bi yépp raxasu la hawla wala quwwata illa billah subhanal malikil aala mbokk yàlla ku màgg la gis nga saabu ndaw si paree ca ténjam day fekk ferñeent yiñ doon wax ci yaram wi yépp fóotu na ba set génn nga xamante ni léegi nag daray góor gi faatu desatul ci sa biir bi allahu akbar allahu akbar yàlla mooy ku màgg yàlla mooy karim kadalika jigéen ji nga xamante ni moom it day eddaw ci mbirum sëy gis nga borom xam-xam yi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci ulumul quran rawatina ci alquran ci boppam ak ni mu dëppoo ak jamono ak technologie tey yu bari yu mu feeñal yoo xam ni alquran démontré woon na ko yàgg na yàlla xam ne ni léeg-léeg da ngay gis ay mbir yu kéemtaane ay mbir yu kéemtaane ma jox la ci benn misaal bu gàtt gis nga ñi nga xam dañuy yéeg ci kaw asamaan si di dem ñuy wax ne dem nañ ba ca kaw amuñu fu ñu nooyee faw ñu yut oxygène fii nangam fii boo demee mënoo taxaw booy julli doo mën a taxaw benn place wax nañ ci ay wax yu bari waaye am na bu ci yéeme dañu dem ba toll moment boo xam ni dootoo mën a gis sa bët jaww ji suñ borom def foofu dootul mën a gis sunu borom waxoon na ko walaw na walaw fataxnaa alayhim baaban min alsamaai fa dallu fihi yaarujuun la qaalu innama sukkirat absaaruna allahu akbar yàlla mu ne su ma leen ubbi leen benn buntu ñu yéeg ba ca kaw même buñ demoon ba ca kaw danañ dem ba dootuñ mën a gisati su booba dañ naan innama sukkirat absaaruna bët yi fi mu ne dañoo mel ne dañoo am problème bal naxnu xaw masxurum ñun xanaa bopp bi daa am ko fekk borom borom mi mu ne bopp bi amul problème bi fii ngeen mën ta xool xoolal loolu ba ko suñu borom di wax ndax xel xalaatoon na avion rek di am déedéet bay xalaat na nit dina mën a dem ba ca asamaan sak ila axirihi asamaan sa buñ ko waxee nag mooy niir wii ci kaw rek waaye asamaan soosu ngay dégg ñu naa fa la bàyyi aadama nekk ak fa la yonent bi doon fëq waxu waxuñ jooja de jooja moom ku fa yegg bu soobee yàlla doo dellu si fii moom jooja moom ku fa yegg doo dellu si fii moom lii nag lu tax ñu ne asana sama dunya xam nga dunya mooy dani mooy lu jege mooy aw niir ngay seen nii fi ne ñun lii ñuy seen ñuy xii nii du du mooy du mooy toiture bi de aw niir la rek li la koy wan da ngay xool avion di ko seen di ko seen mu yàgg nga seen mu dugg ci biir avion daa mën dugg ci biir asamaan si déedéet ci niir yi lay dugg rek moo tax yàlla ah xam naa ni subhanaka maa abadnaaka xaqa ibadatik moo tax mu ne maa qadarullah xaqa qadri àq bi ñu ameel yàlla dëgg-dëgg ci jox ko gëddëm defuñu ko borom bi mu ni subhanahu wa taala wa man yattaqi llaha képp ku ragal yàlla yajal lahu yàlla dana ko defal min amrihi ci ay mbiram yusran ak yombal gis nga ragal yàlla ci say beeg ci yi ma waxoon yépp yàlla def ak yombal ci sa biir zalika mu ni lii ngeen gis nag atte yi jot a jàll mu ni amrullahi mooy ndigalal suñu borom ah mbokk yi ndigalal yàlla ëpp naa xëtt de daalika lii ñu leen wax ci ni ñuy fasee ni ñuy eddawoo amrullahi mooy ndigalal yàlla anzalahu ilaykum yàllaa ko wàcc ci yéen ngay jéem a jaay fulla ha sama doom ñàkkul fu mu ne comme da nga ko fase bubal koy bagaasam yët ma yow loolu du fulla fulla ba fëq li yàlla santaane loolu du fulla de man kay fii duma fi toog waaw sama kër baay am na lekk am na naan damay dem sax loolu du fulla de defal li la yàlla sant dafa li la yàlla sant yàlla xam ne li muy santaane lu tax mu santaane ko de daalika lii ngeen jot a dégg mu ni amrullahi mooy ndigalal sunu borom anzalahu ilaykum yàlla nee na maa ko wàcc ci yéen wa man yattaqillaha ku ragal yàlla bay sàmmonteeg atte yi yukaffir anhu sayyi'aati dinañ ko kaffaaral ay ñaawteefam te mbokk yi xam ngeen ni ñaawteef yi mu kaffaara am na solo trop wa yu'zim lahu ajra sunu borom mu ni danaa ful ak payam benn borom xam-xam mu ne dëgg dëgg nag yàlla bëgg na nit ñi ànd te bañ a teqali ko ñu ne ko lu tax mu ne xoolal trois solutions yoo xam ni yépp suñu borom indi na ko ngir xemem loola teqali ko bañ a am ngir rek dalay may courage wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhrajan wa man yattaqi llaha yaj'al min amri yusran wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim ñeenti mbir la diggee yaj'al lahu makhrajan beneen bi mu ni yaj'al lahu min amri yusran beneen bi mu ne yukaffir anhu sayiaati beneen mu ne wa yuzim lahu ajran ñeenti yëfa ngi problème boo am dinaa la wutal solution say mbir ma yombal ko say bàkkaar ma jéggal la ko saw tiyaaba ma ful ko wax dëgg yàlla nag lii war nay tax jàpp naa ni ñun ñëpp xam nañ ne su fekkoon nu ngi sàmmoonteeg dëgg dëgg dëgg ni ko lislaam bëggee su boobaa kër yi mën naa bañ a tàkkee comme ni muy tàkkee ni dëgg la nag ci jamono yonent bi sax sallallahu alayhi wasallam ay fasente doon na am waaye nag mbir mi yeggut fii fi mu yegg tey kooku mooy benn ci tëj tënk bu mujj ñaareel bi diw wàcc na jabaram taxul comme ni ko ñenn ñuy defee diw du yorkatu jabar mbokk yi nañuy bàyyi xel yenn kàddu yi ñuy yëkkati al cheikh Mouhamadul Mukhtar al-Shanqiti rahimahullah mu ni nit ki dana dem ba àllaaxira fekk fa jëf ju ko naqari te fekk li ko ko yóbbee mooy diw tawil diw xasiir mu ni sa yoon lu sa yoon ci tawil dafa njool mu ni sa yoon dafa gàtt mu ni lu sa yoon xoolal wax jooju ni mu ay loolu nga xam daanaka man pour yow da nga yaakaar dara niwu ci sax wax la joo xamante ni amaana sax ki koy dégg du ca mer mu ni loolu lu sa yoon diw baxiil dafa nay mu ni loolu lu sa yoon waaw fa kay fa kay li ngay wax te fekk wóoru la am na jigéen joo xam ni dafa amul sensu jëkkër loolu mooy nattoo yow nga jàpp ni du sëykat wallahi tooñ nga ko da dafa am jigéen ñoo xam seen nattu ci àddina mooy amuñ sensu jëkkër am na góor ñoo xam ni seen natt mooy amuñ sansu jabar lu lu mat a teq da ngay dégg ñu ne ah diw kay amul jabaram mag ñi dañuy faral di wax loolu fekk li nga ci jublu am na jabar waaye amul jabar li tax amul jabar mooy amul sansu jabar musiba yu rëyee ngoog mbokk yi la tax diw fase jabar ji ak la tax diw ñaan baat kooku sa yoon néew ci boo ca xamut noppi ca beneen bi ci des mooy gis nga wàcc léeg-léeg dana am fekk moo gën moo jur jàmm léeg-léeg nag dana am beneen bi ci des mooy wàcc saa bu amee te jaar fa mu war a jaar yàlla moo lay dimbali ba seetlu nga nit dana wàcc soxna ba pare relation yi mu amoon ak ay gorom dara du ci yàqu da ngay gis ku wàcc ba noppi dara du yàqu yooyu yépp ay meññeent la yu lay wan ni nit ki te léeg-léeg musiba dana na am ju rëy joo xam ne teqalikoo moo ko gën parce que fan nar a jëm daanaka gënu moo tax boo seetloo diine yi nga xam ñoom dañuy dañuy bañ teqalikoo problème yu rëy rëy rëy la ñuy indi bi ci des nag xam naa du fi xaj ndax waxtu bi jeex na ku mer fase sa jabar luy àtteem ndax tàbbi na wala tàbbiwut ku naan sàngara fase sa jabar luy àtteem ndax tàbbi na wala tàbbiwut kuñ forcé ni ko sa jabar ji tey jii wàcc ko wàcc ko léegi xam nga léegi la la la léegi mu am de léeg-léeg goro yi su booy tëj la cib néeg nga ñàkk tooy xëpp ñun la wàcc ko fii léegi léegi léegi bala ngaa génn nga ne duma ko wàcc ñu ne duñ ko wàcc léegi luy àtteem ku wàcc jabar ji ñu ne ko da ngaa wàcc mu ne ma dama doon kaf kese dama doon kaf kese loolu du la ci génn de yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam ñett gi yoo xamante ni kaf ga kaf kaf ga dëgg la dëgg ga dëgg la kaf ga kaf ga dëgg la dëgg ga dëgg la bokk na ci mooy wàcc ah dama doon kaf ak moom doog naa ko wàcc naa la moom mu defee dëgg laa nekk déedéet tey nga déedéet kaf yooyu kenn du ko kaf yooyu insha allah ci dars bii di ñëw bu soobee yàlla benn bu ci nekk danañ ci leeral te it bu ca am juyoo ci borom xam-xam yi danañ leeral lan mooy la ci gën a wér nu ngi ñaan suñu borom mu def ci ñun dégg ak topp mu defal ñu tawfiq ak taysir fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain